moom El Hadj Sidia Dramé nitu jàmm la moo tax ma la ma ne ni du question que day xaar ba édition bi jot mu soog a def ay ñaan waaye ci daaram boo fa demee tey ji bés bu nee ya xale yaa ngi wàcce ay kaamil a kaamil di ci def ñaan ay suratul yaasin di def ñaan donc yemul sax ci daaram bi am na ay daara partout bu ñu yeewee ci suba bi nañuy wàccee kaamil jàng xatma ñaanal Sénégal na jàll jàmm am boo demee Kër Massar noonu la boo demee Ngunjaan noonu la seeju gii nii am na fa daara Bisaasu am na fa daara Simbandi am na fa daara kon nag nit kooku noonu ku jara ñaana la yàlla may ko mooy problème mu ndox parce que ndox dafa baax ci non seulement dalay aar ci wàllu wér-gu-yaram am lu bëri loo xamante ni bi dana def ci yow bu dem buñ demee ci noor mën nañ def seen maraîchage waaw matériels yi bon ni ma la wax mooy tracteurs yi aw nañoo <laughs> màggat léegi yow bëgg tamit état bi jëm a gestuwaale côté boobu parce que nit la koo xamante ne tey ji bu béyee ba koy stocké di ko jaay day ku fi ñëw rek nga mën ngaa njëriñoo mu jox la nga nga yóbbu. xale yaa ngi foofu noonu di ci jëfandikoo kon nag ku mel noonu waroon manqué matériel mooy tracteur ak yeneen ak yeneen ci wàllum mbéy vraiment bëgg nañ ci état. Ah nit la tey ji boo gisee doomam ji di di ci di di ci def ba ñi ñi ràññee ko nit ñi gis ndo doxalinam ci wàllu islam. kon nag nit la koo xamante ku jar a roy la